Assalamualaikum warahmatullahi tay nak damay wax ak ño xamni ni yalla yàlla ma booleeg ñom ma bëgg leen lool nak muy ñan di fatu fatu yi ak modu, modu yi man mère Dial fepp fatu fatu nek ak modu modu nek ma la fekk ne la jabb loxo ne la assalamualaikum di la ziar ci koor gi di la xamal leen ne ñu am jomo ñu bëgg seen bopp ñu bañ gatché ngoog faatu faatu rek ak moodu moodu nga dem ba fekk leen fañ dëkk nga xam ni soxla wu ñu lenn lu dul liggéey suba gu ñu xëyee lañuy tegu gu ñu xëyee fajar dem liggéey dem daani seen doole ba ngoon jot ñu wàcc jaar dem jëli seen doom ñëw ci kër gi togg taal te fu gàcce amee nag ñu faj ko fu soxla amee ñoo ci gaaw jaaraamaa yéen jaaraamaa yéen moodu moodu yi jaaraamaa yéen faatu faatu yi man mère Dial dey man mii ñëw ci seen biir di gis li ngeen di daj ah yéen a jar a rendre hommage yéen a sant moo tax képp ku leen di xas ak di leen beddi dafa xamul moonte di yàgg ngeen faj bu mu gàcc nit yàgg naa am soxla woo leen ngeen fajal ko soxlaam muy yéen moodu moodu yi di yéen faatu faatu yi kon tey bu ñu naan waaw bu moodu moodu yi ñëw Sénégal ndax ñoo fi andi coronavirus senegal nit yàgg na faa dee te jógewul ci moodu moodu jógewul ci faatu faatu moonte dañuy wax ya ak a ñeneen ak a leneen yàgg fajul seen soxla ak ñoo yàgg woo Moodu Moodu mu faj seen soxla wala ñuy woo Fatou Fatou mu faj seen soxla. tey na ne coronavirus bi am na xam ne lëmbe na àdduna tax ñu bëgg leen stigmatiser dama ne ay gor ngeen dama ne ñuy ay gor ngeen ay yaaram ngeen xoolal di dagg buumu gàcce yi nag te yéen rek a mën nekk Europe maa ngeen nekk Amérique lépp kër lu mat ñaar nit ñet nit ba ñent nit loy fa kër te tabax kër bu reuy Sénégal duggal fa seen wayjur ak seen mbokk ay jàmbur di leen dundal <coughs> yeen rek ko mën motax dama ne fa ngeen tek tegoon seen tank ba léegi tek leen fa seen tank na ngeen doon dimbali doom adamay ba léegi dimbali leen doom adamay na ngeen doon jàppale doom adamay ba léegi jàppale doom adamay adamay man xam kan la gëna fonk ak kan la gëna mëna dimbali muy ki nga xam ne dafay xol sama defet ki nga xam ne dafay xol bu bëgg ëlëk mu réma ma muy sama non, koko la gëna mëna dimbali koko la gëna mëna jappalé man mère Dial dama né yeen Modou Modou yeen Fatou Fatou man mère Dial dé ak képp ko xam ki kii ku bëgg lu bax la ñu ngi taxaw seen kanam japp ci yeen fas yeen le nak lepp lo leen nekk suba ba ngon jot ñu ngi ci dama ni kenn amu seen fay yalla rek am seen fay wallahi man mi gis li ngeen di daj ak kep ku gis li ngeen di daj xam yalla kep kep kep mo am seen fay ay jambar ngeen ay ñu bëgg seen bop ngeen ay ñu am jom ngeen ñu bañ ku leen eh, ga ni nga waxe gay demba way yene diñ law la sama khaliqina Kep ku nak fatu fatu rek ak fo mu na nek rek sama message bi xamal ni dama ni la yeen liñ leen wara wax moy bravo liñ leen wara wax moy ñaanal leen yalla yalla yokku leen ba ngeen yokku yalla sam leen yalla ar leen yalla musul leen ci lepp li lon ngeen di jigen ñu am jom Yen goor nit modou modi ken kenn demul ngeen dess derrière chaque grand homme ya une très très grande dame bravo bravo yen modu modi yi wulen xaj kenn kenn da ngeen di tabax keur djel jabar dugul ci machallah allah soxna dugul ci djel seeni mbokk soxna dugul ci djel seeni mbokk yéen dugul ci di len dundé di len dundal nak te do len ni oh sonu wulen tayi wulen kon nak dama ni yen modou modi dama ni ajaaraama dama ni jere ngeen jëf li ngeen bëgg yéen ko xam yalla na len ko yalla defal yok ba ko ci barke weeru koor gi jàmm rek ngeen di am ah jàmm rek ngeen di am ndax nit ki bu teralee way juram di teral néew ju doole suñu borom jàmm rek la koy def jàmm rek la koy may jàmm rek ngeen di am maa leen wax li asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf